tey jii di ajjuma di ñaar fi fan ak juróom-ñeent ci dul qiada muy diggu tabaski ci atum junne ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ñeent ñeent fukk juróom kon day mel ni tey mooy sént bu njëkk tolloog juróom-ñaari fan ci weeru juin atum ñaari junne ak ñaar fukk ñeent mu mel ni kon noo ngi dëgmal weeru dul xijja di weeru tabaski bokk ci al ashhurul xurum di weeru màgg wu tedd wu bari ngëneel lim gën a ràññikoo nag mooy ayit gi ci sun boon defal xeetu yënd bi saasa nag ga muy muy ci ñaari yonent yooyu tànne borom seydina ibrahima ali ak seydina ismail alayhim assalaam xew-xew boo xam ne yëpp maas nañ ko xam waaye tiraange sun boom ci xeetu yi sax tax mu rafaatal leen ko defal leen ko muy na ñuy fàttali ko xew-xew boobee ca la sun boom jotee woon sidna Ismail muy ab gàtt ñi di ko ci rend rendi ngir jaamoo ko yàlla xeet yi fi jaar bari na waaye amul wenn xeetu ko sun boom masa sunnal sharia lu dul xeet yi di xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam muy tiraangay sun boom kon ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wasallam day baax nag ndax day mel weer wi teroo rek yittey boroom kër yëpp mooy li li jënd gàtt lijjanti gàtt boo xam ne moom lañuy ñuy te gàtt ba nag am luñ ca taamu am yuñ cay bañ kon dana baa waxtaanee ko ba lañ ca àgg ndax balaa nit kee wut ab gàtt war naa fekk la la ca war ak lañ ko ca moytu lépp mu xam ko ba bu koy wut bàyyi ko xel kon tabiski moom yi nga xam ne moom la ñu tabaskee dañuy wax ne lañ lañ ci gën a taamu mooy xar ak béy gannaaw xar waaye yi ca des moom ba mel baaxuñ ko tabaski fii muy muy nag wala giléem kon mën na yooyam ci ñaar yooyu rek bu dee nag gàtt muy xar li ñu tuddee jata mooy la cay doy jata mooy gàttu xar boo xam ne am na at am na at maanaam fukki weer ak ñaar yu mat sëkk loolu la ci mat a bàyyi xel mooy am na ci xeet ya raas ya raas yi xar yi raas yoo xam ne dañuy gaaw a rëy lu mel ne ras bi ñu tuddee laadum juróom benn weer képp su ko amee ku ko xool xoolaat ko day toll na ko neex soo xoolee rëyaay bi nag ba tax nga jàpp ne mat na tabaski ko fekk na da ngaa tabaski lu matul tabaski ndax amut ndax juróom-benn weer rek la am amagut li nga xam ne bu ko àggut fi bu fa àggee doo doon mat tabaski te nag sunu boom lam ci santaane xooluñ ci reyaay bi sunu boom soxlu ndawal gi soxlu deret ji waaye pas-pas ba ko lal moom la ci soxla la yanaala laaha luhumuha wala dimaa'uhu walaakin yanaaluhu taqwa minkum te sax ñay tànn riyaay gi léeg la ci ëpp kër lay doon kon daal faaw na am at am at mu kenn nit it bu tëbaskee kum ci yéeni wàll tàbbi na ci biir kon boroom kër gi su fekkee dafa mel na xar la man la mën a am keneen mënu koo am mu jënd mel na xar rendi ko yéene ci waa kër gi yëpp ñëpp tàbbi nañ ci biir waaye teew nag ñam koy yéene ko ca man ko ca man nag mën na jëndal boppam doomam ju ko man wala soxnaam su ko man mën naa bañ a e, wéeru ci bërëmu këram rek waaye mën na bu ko manee rek mën naa jënd am xar moom itam tabaski bu dee béy nag mun dañu wax ne faaw mu tàbbi ci atum ñaareelam tàbbi gu leer mooy am ca weer walla ñaari weer bu dee xar moom it la ci gën a taam taamu mooy kuuy am kuuy kuuy moo gën tàppaange waaw su jàllee nag tàppaa nga ma ca topp mooy xar ñu tàpp su jàllee xar mu jigéen door ca topp waaye xar mu jigéen moo gën sikkitu béy maanaam moo gën béy wu góor wu góor it moo gën wu jigéen wu jigéen wu béy moo gën nag moo gën gileem ci tabaski waaye bu dee xet yu na safaan bala xet yu mooy ka nekk màkk la muy rendi moom dañoo xam moom reyaay bi lañ ci tàmm moo tax gileem moo fi jiitu moo moo ci gën su jàllee nag xaar topp ci bay door ca topp fan yi am na vidéo bu ñuy tasaare ci internet bi muy xar moo xam ne ka ko publier dafa wax ne ngulu ngaana la waaye nag dunguli ngaana ndax xonsa mushkil bu ko arab waxee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 أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام buñ mu waxee xunsaa muskil te mooy ngulu ngaa di ci olof mooy boo xam ne mënee sut ne góor la mënee sut ne jigéen la day am awra yu góor am awra yu jigéen lu mu ci gën a ràññi ko na lool lañu ko jàpp mooy su fekkee dafay tuuree ndox ci awra yu góor yi ñu xam ne kon dañu kon nekkatul muskil góor la suy tuuree ndox ci awra yu jigéen ji nekkatul muskil jigéen la suy tuuree ndox ci ñaar yépp nag la ñu wax ne boobaa nag lay nekk muskil taxaar mi ñuy wane léppam góor la waaye bu ko doon bu doon xunsaa muskil teew manis na ko tabaski ndax bokkul ci sikk yi nga xam ne mooy moom lañ moom lañ jàpp ne mooy tee ma ma tabaski ndax bu dee xar mu jigéen manis na ko tabaski ni ñu tabaski xar mu góor kon bu doon xunsaa muskil itam bu ko doon ngulingaani teewul manis na ko tabaski da ci doy kon day ñëw mubashara ne ci sikk yi nga xam nag dañ koy moytu ci gàtt bi nga xam ne moo la ñu war tabaski nga xam ne bu ca amee rek matul tabaski bu njëkk mooy baat gàtt boo xam ne dafa dafa dafa pat mooy benn bët la yor matul tabaski ni ko noonu gàtt boo xam ne dafa wéri di lool wéri di gu fees ba ko gis xam ne daa wéri di matul tabaski waaye su fekkee day wooy lu weef na loo xam ne teewu ko mën a ànd ak jur gi di fori boobaa dana baax bokk na ci tam xar mu làggi xar moo xam ne dafay sox sox bu metti ba ànd ak jur ji di ko raw xar moo matul tabaski ni ko noonu xar moo xam ne dafa dafa dafa dafa làpp mooy dafa yooy lool ba amul dara ci garis mooy itam matul tabaski ni ko noonu xar moo xam ne li ñu tuddee junoon da koo jàpp mooy dafay dafay say dafa mel luy say man ngeen xar mu dof matul tabaski xar mu lu moo xam ne musta mënta mi am matul tabaski xar mu nopp yu tuuti lool mbëtul tabaski moo itam xar moo xam ne euh, dafa ràmm mbëtul tabaski wala boo xam ne day day caar rek xar moo xam ne dañoo xar nopp walla ñu dagg ko lu ñu ci mën doon su fekkente ne ëppul sulus ba soo xaajee nopp bi ñetti xaaj su fekkee lañ ca xar ëppul benn ba wala mëtu ko mbaa lañ ca dagg baax na waaye su ko ëppee nag mëtul tabaski ni ko doon suñu daggee genn bi itam ba tey aati bool su fekkee lañu dagg matul sulus bi wala ëppul sulus bi mooy da koy yes wala mu yam ca kepp baax na waaye su ko ëppee na mooy ba tey dootuma tabaski fekkee béy ci béy jëm dafa dam muy naaj ci wéeragut matul tabaski waaye su fekkee wér na nag wàññiwul dara baax na kon yooyu yëpp ay ay sikk la yoo xam ne boo amee ci xarit moo tax kiy jënd war na ko xool bu baax lam ñu war a njëkk lijjante mooy aas bi mooy mooy ndax ma am na atam déet su matee mu door a xool nag nemmiku cër yëpp ba xam benn cër daggu ca liñ tuddoon ci sikk yëpp ba dara yem amu ca mu door a waxaale door dooru jënd ndax mën ngaa jënd ba indi door caa gis nag loo xam ne ci sikk yi nga xam ne yi koy temb tabaski la tubaa door ci mën dellu gannaaw kon yëpp lu mat a eh, bàyyi xel la eh, bis bi nag di waaye nag tabaski nag li muy baax baax li muy doon doon sunna ku ko man lañ wax ku ko man kon jër na teg toggoo ca coono yoo xam ne ëllëg dala jure fitna jërul ay bor toggoo ci ay bor lépp ku ko mënul wàcc na la ki ko amit nag moo gën a yay ci rendil ko boppam su fekkee mën naa rendi moo xam góor lu moo xam jigéen ndax jigéen mën naa rendi su fekkee mënta rend nag mën naa wut keneen ku ko wutu rendil ko ko kum ci yéen it nag tàbbi na ci biir tabaski ñetti fan la bisu fukkeel bi fukkeele benn la ñaar soo ko mënul ci bu njëkk bi bu ñaar bu ñaareel baax na boo ko mënul ci bu ñaaree bu ñetteel baax na ba fu ci am ñetti fan bu ci mën a amentaw su boo ko rendee dana baax waaye dee su ko rendi guddi nag njuma doon ci ba lay doon li tàmbalee ci fenku fajar ci ñaareelu fan ba ba ba ba ba jant so dañuy wax ne bis bu njëkk sax fekkee dem na bi tisbaar nga door amu xar la gën mooy nga muñ ba ca suba si coo nga doog koo rendi kon yooyu ay mbir la yu ci am yoo xam ne yu mat a xam la kon nag ñu ñëw ci xutba bi nga xam ne moom la imaam war a jàng ci kanam tuuti gannaaw bu mu sante yàlla tagg ko bàkk ko ci ay melokaanam julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne gannaaw loolu yéen nit ñi da ngeen guddi ak bëccëg yaari warukaar warukaay lañu yoon ci leen nit ki mën a war ba jéggee ko mboolem maraaxili dund mboolem tolluwaayu dund gi ci la koy mën a jéggee ci ñaari waruwaay yooyu waaye ànd ak loolu lépp nag nun noo ngi ni taagin toog jekki jëm jëmu mel ni mel ni ko jëmul na te aji wootee deekat mi ngi ñuy woo waaye ànd ak loolu lépp nag ñun ñi ngi nuur rek yendoor ci nelawi càggante kon rek na ngeen waaj te teeroo seen weer wii di ñëw nag muy weeru zul xijja weeru tabaski neen ko teeroo ci yaatal ak aku teral te taxaw temm ci li leen war ci màggal ci màggal ko ngeen jàmmate matali màggal te ngeen sellal nag seeni jëf ci biiram ngir jëm yàlla subhanahu wa taala tax ne weer wi na limu muy yaatu yaatu la ca gën la gën ci weer wi mooy fukki fan yu njëkk yi al ashru awaayil min til min til xijja dafa nekk dañu wax ne mooy bis yi gën ci mboolem bisi àdduna yëpp mboolem bisi àdduna yëpp fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski moo ci gën moo def sax giñ ca fajri wala yaalin ashra dafa ci fajabaay daa dama maa ngi giñ ci fukki fan yi njëkk ci weeru tabaski dafa teteel kon ak màggam mu ne kon nag na ko nangeen ngeen ko dafay dafay bis yu fees dell ki yiw ak yi kon na ngeen ko dundal nangeen ko dundal ci topp yàlla ndax lu bokk na ci wasaayil yi gën a màgg anam yi gën a màgg ci ci ci ci ci ci dundal ko mooy di ca topp yàlla nee muslim euh, génne na xadis boo xam ne mi ngi jóge ci ummu salamata radiallahu anhuma mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax noo ne ida raaytum xilaala dil xijjati wa araada ahadukum an yudaxiya fal yumsik an chanrihi wa adfarihi neen yun saa sallam nee na saa bu weeru tabaski teroo bu ngeen ko gisee weer wi da ngeen téye seen loxo ci seeni kawar ak seeni we maanaam su weer tabaski xasee teru weer bu xasee feeñ amatoo sañ-sañu dagg say we wala ngay watu li fekk ngay àgg ci bisu tabaski ba ren ba noppi door ko sañ bàyyi lu xel nag tey la séentu bu njëkk kon ko bëgg a wattu wala nga lewi ko gaawal def ko balaa jant soo ndax weer wi mën naa feeñ bu ci jant xasee so ba xas weer wi xas feeñ nag ku ko defagutoon nag bala nga ko sañ da ngaa àgg ci bisu tabaski ba rendi ba noppi door ko sañ ida raaytum xilaala dil xijjati wa araada ahadukum an yudaxiya fal yumsik an wa adfarihi neen yun saa salam nee na saa bu weeru tabaski teroo bu ngeen ko gisee weer wi da ngeen téye seen loxo ci seeni kawar ak seeni we maanaam su we tabaski xasee tero weer bu xasee feeñ amatoo sañ-sañu dagg say we wala ngay watu li fekk ngay àgg ci bisu tabaski ba rend door ko sañ bàyyi lu xel nag tey la séentu bu njëkk kon ku bëgg a watu wala nga lewi ko gaawal def ko balaa jant so ndax weer mën naa feeñ bu ci xas jant xasee ba weer bi xas feeñ nag ku ko defagutoon nag bala nga ko sañ da ngaa àgg ci bisu tabaski ba rend ba noppi door ko sañ salaasa moo ko jàngale nee na kon bu xeeru xasee feeñ rek nen na ngeen téye seen bopp ci seen kawar rek seen i ba keero mooy ki ki ki war a tabaski ki nam a tabaski nag kooku la lañ wax mu ne kon yéen nit ñi nangeen ngeen xemeem li leen yonent bi saa sam xemeem loo te fulanteeg yàlla mi nga xam ne dara du ko rëcc lu toll ni fépp suuf ci asamaanu suuf du ko rëcc yal na yàlla yàlla jariñ te jariñ leen ci alxuraanul karim loolu mooy xutba bu njëkk bi bu ñaaree bi gannaaw bu mu sante yàlla ba tey bàkk ko kañ ko julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu loolu yéen jaami yàlla yi Tirmidi yu ak Ibnu Maaja ak Bayhaqi yu soloo nañ jëli ci Abi Hurayrata radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ma min ayaamin ahabba ila llah an yutaabada lahu fiha min ayaami ashri dil hijjati ba'da siyaami ramadan kullu yawmin minha bi siyaami sanatin wa xiyaamu kulli leylin minha bi xiyaami laylatil qadr lu màgg la te ñu saa sa wax na ne gannaaw bu weeru koor jàllee amul bis yu gënal yàlla jaamoo ko ca ci fukki fan yi njëkk ci sul hijja ne bis yu màgg yoo xam ne benn bis boo ca woor dana tolloog woor atum lëm guddi goo ca taxaw naafile ko mel nga ko taxaw naafila guddeeg Laylatul Qadr kon loolu lu màgg màgg la ba tey jëliñ ci Ibnu Abbas radiyallahu anhu wax ne anuma wax ne yonent bi sallallahu wax na ne amul yenn bis yu gën fa yàlla te gënal man yu gën fa yàlla jëf ca wala mu gënal yàlla azza wa ci bis yii di fukki fan ci ci weeru Zulhijja kon demel gannaaw bu koor yàlla rek bis yi gënal yàlla nga xam ne ko ca jaamu itam moo gën jaamu ko ci yeneen bis mooy atul sil xijjati atul awaayil muy fan fak fen njëkk ci yoru zil xijja mu ne kon na ngeen ci baril di wax laa ilaha illallah ak allahu akbar ak xeeti tudd yàlla yeneen gannaaw nag woor ko benn bis dana tolloog wooruk at jëf ca boo ci jëfe jën jëf ñu ful ko ba ma juróom-ñaar téeméeri fulandi kon nangeen ko màggal kon baax a baax a baax ci tudd yàlla ci jaamu ci yàlla mu ne ba tey jël nañ ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne woor bisu arafat ndax bisu arafat ci fukki fan yooyu la bokk mooy juróom-ñeenteel fa juróom-ñeenteel fan ci tabaski mooy yow mu arafata at mu nekk weer réew mu nekk nag seen juróom-ñeent la xam nga mën nañu wuteeg màkka màkka mën nañoo taxaw arafa fekk muy suñ juróom-ñette fan ñun waaye teew ñaari fan yépp nag ñaar yëpp yu digle ku ca war la muy juróom ndax fukki fan yépp dañoo taamu ku ca war rawatina nag juróom-ñetteel ba ak juróom-ñeenteel ba waaye bañ ca digle nag muy juróom-ñeenteel bu réew mu nekk seen juróom-ñeent rek mooy seen arafa mooy mooy mooy seen bis bis bi gën a taamu ku ca war mu ne kon nag mu ne maa ngi yaakaar ci yàlla mu fa faar ci at bakkaari at ma jiitu ak ma ca topp mooy boo waree yow ma arafa dañuy jégal bàkkaaru at mi nga weesu ak bàkkaaru at mi nga dëgmal kon loolu lu ko gën a màgg amul mu ñaan ci yow ma arafate nag am nay may yu màgg màgg màgg màgg yoo xam ne imaam Malik génn na ko ci Muwatta wax ne yonent bi sa alayhi wax na ne afdalu duaa yi duaa yow mi arafata wa afdalu ma xultu ana wa nabiyuna min xabli laa ilaha illa huwa la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir nee na ñaan gi gën ci ñaan yi mooy ñaanu ko yow ma rafata da ñaan yooyu gëcc gën nga xam ne moom man moom laa wax man Moustapha yonent yi ma jiitoon moom la ñu wax mooy ñaan gi di laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir mooy ñaan gi gën ci yow ma rafata nen man loolu laa wax yonent yi ma jiitoon itam loolu la ñu wax ne ñaan googu mooy ñaan gi gën ci kon di ko baril ci bisu boobu baax na lool yàlla na ma yàlla jégal te jégal ñu jégal mboolem julli yëpp yàlla na sunu boom bool dimbale bool defal tawfiq xiir nu ci ak ñu te saxal nu ci def nu dëgg dëgg taalibe Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangu nu sunu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله على الفلاح الحمد لله الملك الديان الذي خلق الأملاك وسخر الأفلاك وقدر الأزمان وشهدت بوجود ذاته ووحدانيته الأكوان الواحد الأحد الذي ليس في ملكه هان الدائم الباقي وكل شيء سواه فان نحمده تعالى ونشكره على ما له علينا من صنوف الإحسان ونستعينه سبحانه ونستغفره من كل ذنب عملناه عن عمد أو خطأ أو نسيان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل يوم هو في سان ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه سيد ولد آدم وأشرف بني عدنان أما بعد فيا أيها الناس إن الليل والنهار مطيتان يقطعان بنا مراحل الأعمار ونحن قود وإن منادي الموت ينادينا ونحن في نوم الغفلة رقود فتأهبوا رحمكم الله وتلقوا شهركم هذا بالترحيب والتكريم وقوموا بما يجب له من الإجلال والتعظيم وأخلصوا العمل فيه لوجه الله الكريم وأفضله العشر الأوائل منه فإنها أفضل أيام الدنيا بأسرها مسحونة بالخيرات والفضائل فاعمروها بطاعة الله فإن ذلك من أعظم الوسائل وأخرج مسلم عن أم سلمة عن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة wa araada axadukum an yudaxiya falyumsik an shacarihi wa awbaarihi أيها الناس ارغبوا فيما رغبكم فيه نبيكم الكريم وراقبوا من لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض نفعني الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم alhamdulillahi kama yanbaghi bi jalaalihi wa shukru lahu ala ma awlaahu min saabiri ifdaalihi wa nashhadu an laa ilaaha illa allahu wahdahu laa shariika lahu fi daatihi wa laa fi sifaatihi ولا في أفعاله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه وإرساله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه مدى بكور الدهر وآصاله أما بعد فيا عباد الله روى الترمذي وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من أيام عشر ذي الحجة بعد صيام رمضان كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها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 أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام يعني العصر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير وذكر الله وإن صيام يوم منها يعدل صيام سنة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 fa inna duaa fiihi maziyatun axraja alimaamu malikin fi lmuwatta'i anna rasula allahi sal allahu alayhi wa sallam qaala afdalu duaai duaau yowmi arafata wa afdalu maa qultuhu ana والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين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 فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى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 صحف إبراهيم وموسى الله الله أكبر سمع الله حمدا allahu akbar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 Allah akbar Allah Allah asalaamaaleykum. asalaam. إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو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 فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون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 فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا شيئا ولا يؤمن تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ۖ سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجداً وادخلوا الباب سجدا وقولوا حط قطن يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا يخرج لنا مما تنبت له من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون